jërë ngeen jëf ci kóolu geeg bàyyi xel suñu programme waxtu jéppaleen xibaar yi jot na mbokk yi asalaamaaleykum li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci jamono ji nag Sénégal euh, takkar naa ci ak convocation ci kanamu yoon euh, bokk na ci njiitalu gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ginnaaw euh, Cheikh Yérim Seck ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi leen di woolu lan moo waral lu nu mel en tout cas justice bu Sénégal jamono ji jeex na lool daan ci ñëw ci jotaayu xibaar yi. daañu waatu jëmale ci euh, Tambacounda euh, pëccëxoo am na nag ci ministère ba gàlloo mboolem ñii di yëngu ci wàllum càmm ji lan mooy ba jëw seen diggante boobee daañ ci ñëw faram fàccook ak sunu ndaw ba ñu fa toogal di amatu Diallo daañu àddu jëmale ci euh, wàllum nag secteur privé Sénégal lëkkaloo nañu CNP ak CNS lay euh, xemmemteef gi mooy naka lañ defee wenu say ba koom-koom gi daanaka nërmelu ñu mën ko nukkil tegu ci yoon ndax fi mu nekk nii li gàll seenu loos ak leen bëgg a suuxal diis na gan war nañu kon mën a rek euh, gan ginneeku ba tegu ci yoonu suqaliku di secteur privé bi daañ ci ñëw jamono jooje nga xam ne état bi sàkku nañ mu gën leen a bàyyi xel may leen gët bokk na ci xibaar yi euh, soxal na wàllum njëgu dund gi nga xamante ni euh, ñu bëri doon nañ ko fi wax wàññeeku na waaye dafa mel ne forage daal di xëddan a ngi ne selaw njaw euh, ngi des nu xamin wala demul tënk dikkul mbay laar en tout cas bokk na ci tax maître ma soxna kan bokk ñi SOS consommateur addu ca mbir mi ne boobu lépp dogal mesure ba ba tey file léeboon luppoon dafa mel ne lépp dafa jare tab bi géej dañ ci ñëw ci jotaay yeneen ci ponk mooy buur bi la jotaay ci kanama faram-fàcce mbokk yi ngeen euh, dal jàmm ñu fas ne yaatal xibaar yi den wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu euh, doore ko ak Guy Marius mi nga xam ne dellu si na ci la ko daloon ca foofee ca Togo ca Lomé di wàllum kon agression boo xam ne jot na ko dund mu dut baaraam nag kii di gouvernement bu Togo bu Togolais boobale jàpp ne ñoo planifié maanaam ñoo nas pexe yu nu mel jamono jooju nag parlement bu CEDEAO ñoom doon nañ def ab jotaay ni tey jii ci àll ba ji ngir it doon. Euh, wax ci mbir ma xew foofee euh, ca euh, Lomé diñ ko am jombut ci yeneen jotaay ak sunu ndaw di soxna Ndella Ndiaye manqua ju ci bopp xibaar yi Sénégal fi mu nekk nii kenn xamee kooku màccum gerte ci jàpp gi euh, mi ngi daanaka takkar naase lool euh, ko di ay convocation lan ma ko wundu euh, jamono ji gis nañ ne bu yàggul Kader Diop Kader Bokk Dia ak ki nga xam moom moo di Cheikh Yérim Seck Jéggi Diop kii di kon Bougane Gueye Dany en tout cas woote gi ca kanamu yoon ndem ba file dañuy njott ne amaguñ kuñ ne lii la def waaye lu ci mën a am woote ga bëri na lool lu ci bëri daanaka ca kanam yoon ngir leerlu tax na nag fi mu nekk nii sax yenn ci ay taskati xibaar sax loru nañ ci convocation yu ni mel réew mi nag fi mu nekk nii mu mel ne des ko cuub xàmmee seetul ko ban Sénégal la ñu nekk ay satuba semaine ay convocation yu takku yo xam ne na fofé division des investigations criminelles ak fofé ca division spéciale de super sécurité. lañu daal di saytu nag mu jëm ci ay homme politique ak ñi nga xamantene ne ay taskatu xibar lañu. Bingudenk, bi nga xamantene ne nañ loxo ki di bi mu denk walu tagat ci Macky Sall ngir coowalub lubal khalis ak li di blanchiment ci semaine bi ñu yemul foofu ndax woo nañ ki nga xamante ne moo nekkoon njiitub promotion de l'économie sociale et solidarité moom itamit ci nguuru Macky Sall la ko nekkoon mu nekk Diéguy Diop Fall démb nag jot naa tontu ci ay laaj foofee ca division des investigations criminelles ci coow lu jëm ci luubal fanweeri million ci suñu xaalis gannaaw bi lee laaj tontu bu yàgg nag daa nañ koy bàyyi mu dellu këram waaye dinañ ko woowaat ni ki altine bi ñu dem bu 10 heures ci suba waaye nag yemul foofu yeneen convocation yu gën a bari coow sax amaat na bu ci mel ne bu journaliste bi di Cheikh yirim Seck jamono ji mi ci loxoy mu nekk en garde à vue ñu ngi koy toppee division de fausses nouvelles maanaam tas xibaar yoo xam ne du dëgg ak li nga xamante ne moom mooy diffamation waaye nag bile arrestation am na beneen bu ko jiitu mu nekk bu chroniqueur bi nga xamante ne may kadeex mu nekk ca des médias ñu jébbaloon ko ab convocation ni ki aljuma gannaaw bi nga xamante ne ni na ci benn émission joxoñu a tuuma ñi nga xamante ne ñooy police bu Sénégal jëmale ko ci gaal gi nga xamante ne teeroon na foofee ca Mamel bàyyeekoo ca mbëkk mi moom itam ba tey mi ngi ci loxoy yoon tey jile alarba ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany nekk njiitub mouvement politique bi di gëm sa bopp la ñu war a dégg foofee ca division spéciale de cybersécurité coalition bi di sàmm sa kaddu nag daal di nakarlu li ni jaarale ko ci ab bind Sénégal li mel du leen lu dul xokkatal waaye tamit saboté seeni pas-pas si les élections législatives yi nga ni moom la ñu dëgmal cantagërëm ñeel na ko Aïssatou Ba addu ci leneen ci xibaar soxal na tamit lu jëm ci euh, lii di UASID donc du euh, ñëw ci wàllum naka la ñuy waxtaanee fii Sénégal ci wàllum élection yi euh, ba jigéen ñi tamit mën a am seen ko taxawaay kàddu ci barab yee nga xam ne fa la ñuy nasaka noccee bokk na ci la sabab bi leen daje ndax yenn saakat dañ leen di fàtte ak sàggane ci yenn dogal yi ñuy nasaka nocc yi loolee bokk na ci kon ndaje bi ab atelier bu am solo boo xamante ni lël ñoo ngi ñoom si soxna yi teewoon dénk na ay kàddoom moom moomee di Astou Fall kii di sunu ah, ndaw di ah, Awa Sall Awa bokk Sall waaw moo ñu fa maam Awa Sall moo ñu fa teewloon. loolu paa la paa mag bu ñëw kii te dañu continuer encore di gën euh, njoñ suñu moroom suñu naataangoo jigéen ñi ñuy. Il di pour occuper les places euh, qu'elle mérite au sein donc des instances de décision te gis nañ combat bi mi ngi rencontre cela permet toujours encore une fois d'encourager les femmes et de les conscientiser davantage parce que pour leur dire que elles sont leur place au sein donc des mi nga kon di woon jigéen ñi nga xam ne dañuy euh, waxtaane lu jëm ci nasaka no ci barab yañ koy defee ngir ñu mën ci am taxawaay ca diwaanu euh, Tambacounda jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllum ay wala bokk ñi yëngu ci wàllum euh, càmm ji moo xam jigéen wala góor en tout cas di ay éleveur mer nañ ba futu jëmale ko ci jëwriñ ji leen gàlloo ñeenti fukk ci ay million lañ bëgg ne daanaka rocceet ci seen banque agricole gañ ko dénkoon gañ ko doon bàyyi ngir it man cay liggéey bay mbay moo xamante day jëm ci ñax ñax moomee di wàllum xontuk jur gi jàpp nañ ne du lu gën bu fekkee dañ ko faa jëlee loolee leen merloo ba ànduñ ci benn yoon jàpp nañ sax am nañ tiitaange euh, ci euh, li nga xamante moom moo di kopparee fañ ko nar a dëgmale maanaam baa duñ ko jëfandikoo ci yeneen i anam loolee mooy leen seen tiital en tout cas kenn ci ñoom yore na euh, seen kàddu dénk na ko su ndaw ba ñu fa toogal di Amadou Diallo daje bi ndax préfet daf ñu convoqué nee na ministre nee na suñu xaalis OSB bi Aminata Mbengue Ndiaye bi mu indi woon fi gouvernement temps Aminata Mbengue Ndiaye jàppale ko éleveurs yi boobu ba tey foofu rek la ñu mus a am ku jàppale éleveurs Tamba yi Sénégal yëpp la woon 46 département ñu ne département 46 département yi ñoom ñëpp nag département bu nekkee jël xaalis boobu bu nekkee ci compte bu ñu doon jëndee aliment de bétail suñu nag yi bu sonnee ñu génnee ko ñu dem jëndi ñu ne waxtaan nañu nañu jël xaalis boobu pour ñu yónnee leen ko mu dem Daara Jolof dafa am tool bu ñuy def foofu projet la pour ñu def foo culture fourragère ñu woo ñu man refel en épreuve ñu ne nañu signé d'accord nañu wala d'accorduñu ma ne leen ministre bu doon def dara day woote et ministère élevage mais wax bu ma bettee bi nga xam ne xaw ma nu mu demee du ma ñeme signé ndax man éleveurs yi ñoo ma jiital su ma leen wooyee réunion nag ñu jox ma seen accord ndax dañ xaalis bi suñu compte mu ngi am téeméer million ak juróom fukk euh, culture fourragère ñun béy nañu culture fourragère ñax mu ngi fii am nañu àll te ñun amuñu ndox xaalis boobu xëj na ci suñu département bi woo naa leen ma ne maa ngi seen gannaaw ñu wax dëgg yàlla lu ñu ganal mais suñu kii départemental nee nañ nangu leen parce que su ngeen nanguwul aussi mun nañ ko jël ma ne ko nañ ko jël xanaa ñu jël ko fa xamuñu si ñëwuma ñoom nag nee nañu seen sago anduñu ci jël seen xaalis deux cent millions euh, ñeent fukki millions di ko yóbbu ba daara affaire berkitir flaser ma ngoog ci jamono jooje secteur privé bi ñoom di xool wan ñaan lees mën a jaar ba mën a suqali eh, seen ko liggéey CNS mm, ak CNP ñoom nag daan nañuy boole seen i doole jàpp ne lu kenn man ñaara ko daaxte ñett moom duñ songoo lañ daan bennatoo ñu ñaarata ko lañ daan ñaaratoo ñu ñettata ko ko ngir gën a mën a doole ngir gën a xam fan la ñuy mën a teg seen yoon waaye càmm gi gën leen a bàyyi xel di état bu te xam ne ñoom ñii kat bokk na ci ñi nga xamante ni ku tudd koom-koomu Sénégal falaa budd nga bàyyi leen xel ñu ànd ceeg Mansour Dia mi ci taataani kàddu ñi dem dox ba taxaw tey nekkat léegi jot na ñu newoon nañu benn si njëlbeen nañu dellu si loolu ndax si loolu lañuy mën gën a yokk suñuy taxawaay ñeen ñi nga xam ne si entrepreneur la ñu yokk suñuy taxawaay suñuy discussion ak état ak syndicat yi ak liggéeykat yi noo xam ne loolu suñ si taxawee bu baax dinañu mun aussi wuyu si lii suñu autorités yi dañuy woot mais loo xam ne aussi ñun ñàgg nañ di ko si dox ñi am si nag yaakaar bu bëri ndax loo xam ne ñi di yëngu entrepreneur a ko bëgg soxla ko ñoom ñoo ñu désigné pour ñu dem ko ñi bëgg ko depuis bi ñu waxee ñoo ngi bokk suñu doole ñi nag CNES ak CNP nga xam ne kat aussi si secteur formel mun nañu jàpp ni sax presque ñoo si ëpp doole. dafa amoon importance rek ñeen ak kenes ñu engagé loolu ndax suñu ay organisation ñoo gën a nuroo dafa xaw a nekk benn donc ñi am si yaakaar trop te biñ ko waxee ba léegi dafa mel ni àddina bi yëpp yemul Sénégal rek même ñi nekk bitim réew dañuy rafetlu li nga xam ne ñoo ngi koy jog di ko di si taxaw di ko waaj a def. wax nañ leen ni am na programme boo xam ne ñoo ngi koy déroulé commencé nañ liggéey bi fekk xam naa ne du yàgg ñu mën ko pare ñu nekk benn organisation jëm kanam. li ñu bëgg a wax rek te moom le président bay di wax léegi moo yëf yi dugg te bëgg euh, mu antu ak ci lu gëna gaaw Sénégal ko soxla entreprise yi ñoo ko soxla aduna bi mo dox ba nga xamné ne ñëpp gis nañu mbolo moy doolé loolu lañu bëgg taxaw moo tax incha ménager ben effort lepp li nga xamné suñu kam kamtaay la nañ ko def pour que mbir mi egg ci euh, fi nga xamné mom la ñëpp di xaar te ñëpp di ko rafet mi nga kon euh, di woon Abdoulaye Dièye du Mansour Diassé ba jëmoon ci patronat boobee di euh, waajal donc euh, di doon waxtaanee lu jëm ci lëkkaloo gi ñuy lëkkaloo ak yeneen i kuréel bokk na ci wàllum kon loo xamante ne at bu jot da koy def maanaam ab rapport d'audit mu ni Cheikh Diba nag moom fëddali na taxawaay gouvernement bi ci wàllum bon gouvernance bokk na ci kon loolu nga xamante ni kon ab session la bu ñuy amal jëm nag ci li ñuy wax portefeuille bu Banque mondiale bu Sénégal weeru ñu doon ko amal kon ministre des finances ak du budget daal di dellu si waat ci njariñu ndaje bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def ak daje waxtaane projet yeeg lépp lu jëm ci suqaliku kuy développement bi fan lañ ci war a euh, jëm loolu lépp nag ak Sénégal naka la ñuy fexe ba yorin gi jaar yoon sell lool ba dara bañ caa taq wala gàllagoose wala gàkk-gàkk jëm ci nekk li askan wi yëpp bokk ñu wax finance publique dañ ci ànd ak setu Gànno ba ñuy amal session bu ñu jagleel saytuwaat bépp projet bi nga xamanteni a banque mondiale dans nako financer ci at bi fii ci réewum Sénégal jëwrin abu gallo finance ak budget di Cheikh dibar ñëwaat na ci ñu session bi d'une part nous préparons les prochaines lenn mën nañ ko wax ñi ngi waajal war amal jëm ci fonds monétaire ak lii di banque mondiale lenn itamit ñu daal di xam ne ni ñi ngi ci li nga xamante ni moo di ay négociation euh, ak ay réew waaye tamit ak banque mondiale waaye itamit di jëm service étatique yi ñi di euh, finaliser li nga xamante ni moo di référentiel gu ci jamono bi nga xamante ni rapport audit yi mi ngi génnee fu nekk te budget ji di fàttali seeni engagement ngir amal gestion bu mucc ayib bu leer bu li production wa rapportu dafay daal di rek besoin bi nga gestion rigoureuse transparente efficiente bu finance publique bi. ci ba muy jël kàddu jëwrin bi dëggalaat lii di volonté gouvernement bi ci def seen kéntalay kàttan ngir indi yokkute ci financement public jaarale ko ci ay jéego yu am solo ngir lu jëm ci wàllum lepp daal di wàññeeku. le gouvernement réaffirme sans équivoque. Le euh, gouvernement bi mi ngi gën a daal di réaffirmer maanaam gën dëggal di volonté ngir di améliorer di gouvernance financière waaye tamit daal di gën a ñoŋal di intégrité bu cadre de gestion bu lii di dette bi ak lii di budget bi ngir rek ñu daal di éviter yi ni mer concrète et bien identifiée. Bobule revue dina tax bépp sénégalais dal di xam banque mondiale projet yi nga xamante ni jot na ko financé ci at bi waaye tamit dina tax ñu dal di xam bépp défi bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy jànkoonteel Amsatou Gànn cant ak ngërëm ñeel na la addu jëmle ca diwaanu Tambacounda jamono jooju nag naka la ñuy fexe ba soqali wàllum tourisme foofee ca diwaan ga tax na nag daal acteurs yi ña ca yëngu rafetlu bu baax a baax dogalub relance boobe ñu ci nara a amal ca projet boo xam daal kilifa yu yees yi jël nañ ko ngir gën a taxaw secteur boobu ci wàllum tourisme rawatina ca diwaanu Tambacounda am na sunu ndaw bu ñu fa toogal di amalu Diallo moom lañ ciy teewlu ci nu mu gën a yaatoo benn mission bu bàyyeekoo ci jëwriñ bu ñu dégg lu jëm ci wàllu tourisme ak artisanat daje ak acteurs yi yëngatu ci wàllu tourisme fii ci diwaan bu Tambacounda nag ñëwaat di jël tëral ko nag ak acteurs yi ñu xam lan mooy lan moo ci nekk bu ñu ci waxtaanee professionnels yi wan leen un peu les ni moom lay proposé. xëy na ñëw Tambacounda wu ñëw ñu présenter leen projet bi présenté leen axe yi maanaam axe aménagement présenté leen axe promotion bi présenté ak mesure ni moom lañ ci propose ñu waxtaan ci ñoom tam ñu jox am ci ay euh, décisions yoo xamante ni yu am solo la mel ni nag mesures yooyu nag euh, dina tax nag wàllu secteur tourisme nag euh, doxaat bu baax a baax nu mu meloon ginnaaw nag bi nga xamante ni at yu weesu nag am na ci ay jafe-jafe yu mu joto jànkonteel li ni mel nag daal di tax nag yaakaar judduwaat ci acteur touriste yu nekk fii ci diwaan bu Tambacounda projet le projet Bogu, c'est un projet presque transversal ça touche beaucoup de ministères Euh, bokkoon ci am na ministre yu bëri yu bëri yoo xamante ne suñu leen suñu tas ak ñoom mën wax affaire yaakaar ne lépp loo xamante ne engagé nañ ko te antuwut bi yoon mën na antu diwaan bu Tambacounda nag am parc national Niokolo-Koba préfecture bu Tambacounda site touriste yi nekk ci Bundu ak Bakel ak fële ci Koumpentoum tax na tey ba diwaan am na place bu am solo ci wàllu dispositif bu bees bi nga xamante ni ñu ni mel doon ngëneel ci acteur yi nga xamante ni ñoom li ñuy xaar rek mooy yëpp dogal yooyu nag ñu daal di koy jëfee li ni mel dina tax nag secteur tourisme bi daal di bokk ci li nga xamante ni dafay suqali diwaan bu Tambacounda. Amadou Diallo cant na la ci liggéey bu am solo ba ca diwaanu euh, Tambacounda kon mu nekkoon wàllum tourisme bi leneen ci xibaar maa ngi koy wax sànq rek euh, ci euh, bopp bi mooy jëm ci wàllum njëgu dund gi nga xamante ni gouvernement bi wala kilifa yu yees jëloon nañ ciy dogal fekk ci sax ñëw ko ñi leen jiitu woon ci wàññi gi waaye dafa mel ne wàññi gi de maanaam boo koy xool daal ci jaba yi am na ko wuutale wala boog askan ñu ci bëri àgg si wuñ ci loolu moo waral lu mel

il faut que nous am contrôle ci terrain bi contrôle bi état moo war jël moyens yi nga xam ne moo war waxoon nañ fi ay euh, mille volontaires euh, nangam nangam yooyu yëpp ba léegi ci terrain non seulement état dafa se donner les moyens jox boppam ay matuwaay yoo xam dana tax contrôler physiquement sur le terrain mais aussi population il faut ñu bokk ci contrôle bi la population bu duggee ci boutique luy jar luy jar 900 mu bëgg la ko 1000 francs da nga war a bañ da nga war a bañ ba pare jéebaane ko boole ko parce que saay-saay bugul ko ko jéebaane. mais loolu il faut que gouvernement bi veille ci étiquetage bi ñu respecter étiquetage ban boutique ngay dugg gis ci article yépp ñu taf ci prix duñ ko def alors que c'est une obligation légale parce que boo duggee ci boutique gis ñu ñun la tel produit 900 lay jar borom boutique bi ñeme bu ko 1000 francs alors que bu amul étiquetage yow doo xam ni 900 francs l'i, mi ngi la 1000 francs donc c'est aussi beneen la donc contrôle citoyen aussi dafa war a am volontaires ñu volontaires sur le terrain ñu gis leen mettre ñuy travaillons, nous gis liggéey bi mais tant que état euh, joxul pas moyen moyens, nous ne pouvons pas. L'association association de consommateurs nous, ñoom li ñu warul il faut ñu am ay moyens juridiques Madame agrément bi nga depuis ñetti at ñu ngi top. ci ministre du commerce bu fi ñëw ñu laaj la agrément ba légui joxuñ ñuko agrément bobu moy arme légale bi nga xamni ñun mom lañu mëna utiliser pour attaquer délinquants ci jamono joojee nag li xewoon ca diwaanu Mbour ca Daaru Salaam rawatina nag euh, ñii di kon communauté euh, wala bokk ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllum kankurang euh, am na kuréel gu leen jiite di collectivité Mandeng bokk foofee ca diwaanu Mbour ñaawlu nañ li xewoon ci Daaru Salaam di quartier bu nekk ca Mbour ginnaaw ba fa am ñu ci gaañu woon bu kankurang ba am ñu ci gaañ kii di kon moom Mamadou Aydara job nag daa day ñëw ci ministère de la culture taxawaay yi nga xam ne war dañ ko am ak yi ñu waajal ngir yu ni mel ñun daal di koy maytanu ko daal donte ñu ngi waajal téeméer ak ñaar lépp yoon euh, édition jëm ci célébrer wàllum kankuran ñu teewlu ay kàddam ak sunu ndaw ñuy toogal ci diwaanu Mbour bokk na ci Assou Sow ak Ousmane Biteye. Euh, jotaayu tey bi nag li ko waral mooy dañoo jàng ci seeni publication démb euh, ay xew-xew yu garaaw a graaw a garaaw yu neexul a gis ci bët yu am quartier Daaru Salaam mu am yu ne kankuran ñun duñ ko tuddee kankuran ay faussaires lañ di tuddee.

perspective bo xamné ne dinañ am ay trouble à l'ordre public ak ay violence ndax li di ram fa mu jëm baxul té li nuyo won na depuis dimanche balé passé parce que dimanche balé passé am na bo am fukki at ak ñaar fukki at ak ñet bo xamné ne nenañ kankurang dako gor man japp na né koku du kankurang boku du kankurang kankurang xam kankurang du fekkee histoire kankurang du fekkee xex kankurang du fekkee fuñuy fuñuy fu mangook ñu àddu ci colom faal euh, ñoom nag màggal nañ euh, li nga xam ne moom moo di ci dimanche ji ñu génn di wér ji festival jëm nag ci wàllum caada ponk ba mooy wàllum théâtre tey jii ak jamonoy tey euh, li nga xam ne moom moo di kon société moderne ci wàllum théâtre bokk ñu xoolaat ko doon ca waxtaan si seen biir di ponk bu am solo boo xamante ni daal njiitaloo bu bokk moomel boobee daal ma nga foon rafetlu ko bu baax a baax bokkoon ci ña teewe jotaay bi Mansour Diassé lañ ciy teewul ci sama jëm ak ñi ma àndal muy équipe municipale bi lim nañ ko léegi ñu ñëw pour teew ci bis bi muy bis bu am solo bis bu nu fonk nun au niveau de la mairie dinaa ci del si di remercier ak féliciter ñi nga xam ne tey jii ñooy waa doomu colom na wax na léegi moom ci dirigent yaakaar naa moo ko diriger di leen encourager di leen féliciter ndax bii ren mooy dixième édition te yàlla def na édition bu ñëw dàq morom ma ñu ngi leen di encourager di leen féliciter seen détermination di leen xamal ne tant que noo ngi fi incha allah mairie bi taxawaay bu mu def ren bu déwén dina def taxawaay bu ko gën a ëpp. ndax li ko waral mooy lii dafa bokk ci li ñu dénk au niveau de la mairie ndax art et culture c'est une compétence transférée neuf compétences yi nga xam ne état daf ko jël jox ko collectivités territoriales yi lii ci la bokk kon nag ni ñu war defee ci football bi def ca lamp yi noonu la war defee ci art bi ak culture bi. la ma waxoon daaw lu ko raw laay wax ci moom ndax ku la defal soo ko waxul dangaa naa féq monsieur le maire heure buñ ñëwee dañuy resevoir ak heure buñ mënti ñëw mu ñu ciy defal loo xam ne euh, mënoon na ko téye te bu boobaa duñ ci man dara mais da da ko xam di ko def ak ñim ko àndal kon monsieur le maire waa compagnie bi ñëpp li waxoon sa kër du doy damay ñëw ba ci mbooloo mi colom faal ak suñ mbokki artistes yi toog ñu seedeel la ko ma ngoog dañuy tëjee xibaar yi ak wàllum tàggat yaram jàppale na kon kii di Aliou Cissé nekkatul ci bopp équipe nationale bu Sénégal jëlee nañ ko fa bokk na ci sax conférence de bi fédération bi naroon a amal mujj na ko dakkal te it daal ànd ci maanaam approuvé na dëggal na kon loolu yëpp dàqin jamono jooju nag ñi ngi wax ñett ñoo xamante ne xëy na jàpp nañ ne euh, war nañ ko war a mën a wuutu ci euh, toog gi en tout cas lu ci mën a am jamono ji jàppale ne euh, kii di kon Habib Beye tudd nañ ko ci ak Pape Thiaw ak Omar Daf lu ci mën a am Pape moom fu mu nekk ni moom nekkoon adjoint entraîneur bu ñu moytul équipe nationale bi war a dajeek Malawi ci qualification CAN 2025 yi dana bokk ci xëy na ñi nga xam ne ñoom ñooy jëlee mbir mi ci négg ni ko ñu wax par intérim lu ci mën a am mooy fu mu nekk ni daal liñ ci gën a jàpp mooy Aliou Cissé moom maanaam Euh, li ñu naan fi fini ni jàngi tubaab nekkatul kon entraîneur sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ci jamono ji ñuy waajal kon qualification ñi nekk ba waajal CAN bi nga xam ne ci éliminatoire yi jëm ci deux mille vingt cinq mbokk yi fii la ñu leen di tàggoo yëkkati jotaay bi amoon mbégte ànd ak yéen jéggalu bu baax a baax euh, xamante ne ni kon euh, rafetlu lañ euh, kóolute gi jaajëfal ci coordination journal bi Aliou Mangassa ak mboolem équipe rédactionnelle bi ba ci montage bi Mansour Ndiaye ak ñam ko bokkal ak Daaro ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon régie gi ci technique bi ba lépp mën a yem ngeen doon ko am ci canal 12 wala bokk ci mbaali jokkoy YouTube Facebook ak yeneen plateforme yi ci kanam tuuti 20 heures français bi lay doon ci kàllaama